ndeysaan arbitre baa ngi arbitre baa ngi leen di xool ndax niin nañu wala niinuñu ndeysaan ndeysaan prince prince moom lañ jàkkaar lool tubaabu joor moo ñu wan ginnaaw prince lañ jàkkaar lool ndeysaan tubaabu joor ak prince ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ndeysaan prince ak tubaabu joor arbitre bi laaj na ay siisam ndaysaan arbitre sifflé na tubaabu joor at presse tubaabu joor at presse ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan kii bàyyeekoo Tivaouane Peulh kii bàyyeekoo Pikine ginnaaw raay Penaas lañ jàkkaarloo noonu ndaysaan ndaysaan tubaabu joor moo ñu woon ginnaaw tubaabu joor at ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan tubaabu joor ak prince ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan tubaabu joor ak prince ndeysaan njool mu ñuul mi bib jóoba ko moom ndeysaan prince laaw na prince jëla tànk ba prince jëla tànk ba prince ak tubaabu joor tubaabu joor fàq na ko prince Prince kan la ko bañ Prince ak Toubabou Dior Prince ak Toubabou Dior Prince ak Toubabou Dior jàppante na ñoom ñaar Prince a koy dóor Prince a koy dóor Prince a koy dóor Prince a koy dóor Prince a koy dóor Thiès Toubabou Dior Pélez ak Toubabou Dior Pélez mbot na ko mbañ mbot na ko laa ilaaha illallah Pélez daan na ko laa ilaaha illallah ay waay Pélez a ngi noonu waay Ndiol maa ngi noonu ndeysaan Pélez a ngi noonu ndeysaan waay waay Ndiol maa ngi noonu ko koy Pélez nee naa la nee naa la xoolal mu indi xoolal la mooy indi loolu lépp ndeysaan xoolal la mu indi Prince ndeysaan Prince ak noonu Prince ak noonu ndeysaan ndeysaan Prince ak noonu Prince ak noonu ndeysaan koy Prince